ci chef de l' état bi nga xam ne remercier nañu ci conseil des ministres ñu koy gërëm di ko sant moom bu ñu remercier rek remerciement sénégalais yëpp la en tout cas jërëjëf. xam nga dafa am loo ci wàllu liggéey ci wàllu emploi ci li nga xamante ne mooy FERA suñu borom tegoon nga liggéey ci liggéey bu rafet. mais comme li ma la waxoon rek jeunes yi lan nga leen di dellu delloo loo xamante ni si mën nañ xam ne liggéey bi. éleveur waaw mais ça c'est notre mission ah dafa naa ni Fiara sax moo may indi ci làmb donc ñun ci dynamique boobu lañ nekk ci siège boobu la ñu nekk di ci bay suñu laaj en tout cas muy ci arène bi ma taxaw képp ku ci am dara lu mu tuuti tuuti investir ko dans l'entrepreneuriat bu ëllëgee bu sa doole jeexee dina am fu la mën a jariñ en tout cas loolu mooy avenir réew loolu mooy yor réew te loolu mooy dundal réew doyatuma sax seede ndax mënatuma wax ci moom sooy wut gor ba yem ci Pape Diouf Fall bi yeboo nga dëpp xam nga lu toll ni Fiara nga jël ay mbër ne leen yéen yor sécurité bi première noobu la ngoog kon président de la république ñii la ñu war a dooleel gor pire ngi nii liggéey rek la xam ba pare jub boo nekkul ci dëkk da koy teg Pape Diouf Fall damay ñaan taalibe Serigne Sall bu gi mu doon yàlla na ko yàlla jàppale ndax Père kii sama kilifa la lamb booleetuma ak moom de. loolu wax nga ko fu ne. lamb moom tey mën naa ne kii kilifa la ci man bàyyi la ci man ndey la ci man ndax dafa ma taxawu jàppale ma te day def te du ko wax. Pape Fall dafa yàgg a gore bi promoteur bokki promoteur am yëpp mën nañ ma seede danaan jël ay licence dagal leen ko te bëggul kenn ku ko wax ay xaru tabaski Pape Fall da koy def te bëggul kenn ku ko wax kii mooy gor soo ko fekkoon fii araba ci ngay xam ni gor pire ngi nii gudd fan rek ak wér ak njabootam yàlla na ko seex seex non su may wax ci moom sax sama xol day tooy. yàlla na ko yàlla jàppale. ci barke Seex na Seex Saar bi mu dool ci milliardaire yi Seex Saar bi yëpp moom la nag. jasneer yi may sol ak. ndax lii mais dégg naa nee na costume bi nga yor. yim la jox bu doyul. demal ci buti ba nga dolliwaat yeneen ñaar yaa ko ba. barke Seex na Seex Saar bu ñaar yi ñu ko Wélma jox bu doyul mu delluwaat Wélma joxaat ko yeneen ñaari costume mu teg. kii noonu ak yeneen ak yeneen ak yu ma mënta wax sama kilifa ngi sama président ngi sama lépp ngi ku ko laal nag laal ma barke sëñ Tuubaa Mbàkke ku ko laal laal ma barke sëñ Tuubaa. yàlla def na mu perte combat bi. loolu ñuy wax. non loolu moom perte ñu combat man sama victoire dama koy féete ba léegi boo ñëwoon caare géej ña ngay féete victoire bi quoi di ñaan yàlla defal ñu jàmm quoi. waay mais dama gis ni ñaari verdict moo am première site bi ñu la saakees moo tax. waaw deuxième site la. benn verdict bi après combat bi la. mais biñ lay jox ci biir combat boobu mooy verdict dañu wax si dëgg merci après la mort amul sens dañ doon bëri arbitre yëkkati na suñu loxo jox ñu drapeau bi. Reug Reug yàlla na ko ndam li ji am nañ ci droit wala amuñ ci droit ñun ñu ngi féete def nañ nag euh, li ñu war a def ñun def nañ ñëw nañ ci biir géew bi souffle moo ñu boole moo ñu tàggale mais ñi ngi xaar nag beneen adversaire buy ñëw. mais xam naa rek rek mi ma gis adversaire duñ gaaw dugg ci moom quoi. waaw keroog dama dégg interview am nee na moom combat bi dafa war a leeraat moom ma saake. non ñoom ñoom suñ ko bëggoon a tëgg même bu leen yokkalaatoon duñ ko jël. ah lu tax. Sa Thiès ñem na xam na xam na xam na kan la jàkkaaroon man maa la ko fii su fekkoon ni tey Sa Thiès neewoon nañ ko dolli lan nañ la cinquante millions yooyu ak rek rek dina ko bëri man xam naa poulain bi ma yor xam nga xam naa poulain bi ma yor ñu gën a jëlaat seen édition seen i matukaay ndax temps yi làmb ji am na ay pëccaxoo xam nga mesure boo ko jëlee ci làmb da nga koy da nga koy topp ba mu sës mais temps yi gis naa ni dañoo yolomal ndax licence mbër mu am licence dañ ko def ci règlement yi na du dugg ci biir géew bi mais ku ñëw koroog gis ne Balla Gaye def ci biir géew bi di nga xam ne lii c'est pas normal xaw ma complexe la xaw ma lan la moo tax non waroon a dugg ndax rek rek koroog bi mu ñëwee ci combat qualifié dañ ko loolu moo tax man may may man dama doon défendre CNG mais guddi yi ma toog croisé naa sama bras te lu dul jeex amul de lu dul jeex amul lu dul jeex amul ndax kumba am nday kumba amul nday bu ñu koy ndee ci làmb ji rek day yàq làmb wax waxante dëgg rek xam nga nañ Alioune Sarr lu la dégg na ko mais une grande monsieur Alioune Sarr docteur Alioune Sarr mention spéciale kenn yebu ko woon Iba xam na li may wax xam nga xeex nañ ko ba jóge fi ba mu jóge fi yeneen yu gën a yées nag moo fi am merci.